Euh, mbokk yi ñu dellusiwaat ci émission bi nga xam ne moom nañu baaxoo di def ci mardi bu nekk euh, ki koy taxawe di oustaz Serigne Samb ak euh, oustaz Abdou Sow tey nag Abdou Sow tey dafa am ngànt dafa jàpp maa koy remplacer tey incha allah kon oustaz Samb bu pare rek moon mën nañu dug incha allah tàmbalee émission bi nga xam ne mooy laaj ak tontu bi ñu am ci mardi bu nekk ci waxtu bi bisimilah salaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah euh, Oustaz Sam euh, kii day laajte nee na dafa doon euh, dañ doon julli timis dañ doon julli timis imam bi fàtte biral si ñàkk rakk yu njëkk yi mu fàtte biral mu jàng ci suuf ba bi mu rukkoo ñu sàbbaal ko xam naa imam bi jaxasoo xam naa imam bi jaxasoo léegi kii day laajte ne est-ce que imam bi dafa war a continuer julleem bu pare mu réparé wala war a dafa de war wala dafa ci taxawaay bu njëkk bi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 fas yene delu ci waat ak yéen ci sun émission bi di laaj ak tontu ñukoy amal mardi bu nekk ci waxtu wi ñu ci daan faral di ànd ak oustaz Cheikh Abdou Sow waaye tey nag mu am ngant ñu ànd ak euh, oustaz Cheikh mohammed Lawson mu fété woon laaj ñu fété ci walu tontu yi ñu ñew rek mu baax sorat ci suñu laaj bu ñëk ki mu ne fay laaj dafa doon julli timis mu waroon a mu fàtte ko ba yàllu dem ba rukkoo ñu sàbbal ko mu ne naka lay def waa ki nga xam ne da doon julli mu waroone a béral fàtte ko ba yàllu su fekkente ne fàttaliku na ko fekk na fatiha bi jeexagut mën na koo reprendre at commencé waat ko waaye su fekkente ne fatiha bi jeex na ba mu dugg ci saar wi mu fàttaliku ko wala mu dem ba rukkoo door koo fàttaliku mën naa continuer ak julleem bu salmalee mu sujjoot qabla salaam jàpp ne dafa wàññi ndax daa waroon a biral mu yàllu waaye bu xasee ba rukkoo buñ ko sàbbaalee du dellusiwaat day continuer ak julleem bu salmalee mu sujjoot qabla salaam jàpp ne dafa wàññi naka noonu su fekkente ne daroon doon daa waroon a yàllu mu faf bërël dem ba rukkoo ñu door koo ba tey day continuer julli ga ba noppee mu sujjoot ba'da salaam jàpp ne dafa dolli ndax fu mu waroon a yàllu fa la bérale wallahu taala alam macha allah barakallah oustaz uh, Sam uh, ñaareel laaj bi kii dafay wax ni da doon jàng alxuraan mu am ay passage yoo xam ne dafa jàpp ni dafa intéressant trop mu jël crayon bi mu jël crayon di coché Euh, wala léeg mu jël bic rouge mu coché fi nga xam ni moom la jàpp ni dafa am solo léeg mu jël souligneur souligneur yooyu nga xam ne dafa am ay couleur euh, rouge jaune man ay couleur daal mu ne souligner boobu muy souligner ñoo di ko souligner souligneur boobu muy utiliser wala crayon wala bic rouge pour am référence mu ne est-ce que loolu dagan na ci ci islam dagan na ñuy def loolu ci euh, muy utiliser noonu ci kamil bi dal ndax loolu dagan na alhamdullilah mbok mi nga xamne da fay laaj mo ne dafa yor musaf di jang alquran bu agge ci ay point yo xamne gis na da dafa intéressant donte alquran mom lepp intéressant waye nak xëy na point yooyu muy wax amna na lum cay baye xel mo ne wa ci agge ndax sañ na yor lu melne marqueur wala souligneur di souligner barab yoyu ngir bu ca bëggee dellu waat mu yomb waa ngir tontu ci loolu dañuy wax ne su fekkente ne amul dara lu muy bindaat ci kaamil bi waaye rek da koy solo ñu def ci benn benn mandarga bu mu ko xàmmee rek ngir bu ca bëggee dikkaat mën caa dikkaat loola dara newu ci loola dara newu ci donte nag ne su mënoon a yor fee lu mel ne ab carnet su àggee ci aaye bu mel noonu mu bind ko daal di date noté aaye bi bu dee aaye ak saar wi saar sàngam aaya 25 aaya 30 mu noté ko ci ab carnet nga xam ne boo ko soxlaa man caa dellu lu mel noonu moo gën ngir rek nag bañ a e, ñaawal kaamil bi ak bañ koo tilimal ci loo xam ne bokku ca waaye nag wàññiwul dara mu yor souligneur wala mu yor marqueur boo àggee foo xam ne dafa intéressant ci moom wala am na lu mu fay bàyyi xel mu def ca benn mandarga boo xam ne bu ca bëggee dikkaat mu yomb loolu de bu ko defee ci kaamil bi dara newu ci su fekkente ne dolliwu ci ay baat yu ci bokkul rek lu dafay def aw lu mel ne rëdd rek wala dara loolu dara newu ci waaye daal su ma nee yor lu mel ne ab karneem nag bu àggee ci aaya bu mel noonu mu bind aaya ba bind saar wa ak numéro aaya ba loolu moom mooy la gën soo ko mënee def noonu moo gën waaye bu ko deful tamit di ko souligner ci biir téere bi loola dara newu ci wallahu taala alam alhamdulilah macha allah jërëjëf sas waa kii moom da doon déglu wala boog da doon seetaan benn vidéo dégg ci benn borom xam-xam doon expliqué di wax ni Sénégal dañoo tàmm bu nit génne àdduna ñu ne ko nañ ko jàngal li xalaas ñu ko jànkul wala waxat mu ne boo seetloo nit ñi bu ñu jàng li xalaas ba ba mu jeexal da nga dégg ñu naan amin waaw moom nag muy posé question est-ce que boo jàngee li xalaas mu jeex di fa dëgg ñaan amin ñu jàng fa manam est ce ñaan la bokk est ce ñaan la waaw borom xam-xam ne ne est ce que loolu ñaan la waaw léegi nag kii nga xam ne moom da doon déglu nee na ndax li xalaas bokkul ci lu ñuy jàngal lu ñuy ñaanal nit ku génn àdduna parce que Sénégal fii da ngay dégg ñu naan ku génn àdduna nañ ko jàngal fukki li xalaas ak benn. ak yeneen ci topp mu ne est que li xalaas boobu ñu koy jàngal dafa dafa warul wala moom question boobu lay posé alhamdulilah euh, mbokk mi di laaj mu ne ndax ki nga xam ne dafa faatu ñu koy jàngal fukki lixlaas ak benn mu ne ndax lixlaas ak ñaan la xam naa ngir tënk laaj bi noonu lañ koy tënkee rek ñi nga xam ne dañuy def bu nit faatoo. ñu ne nañ ko jàngal nangami lixlaas mu ne ndax lixlaas ak ñaan la lixlaas nag mooy sóoratu xul wallahu ahad ba saar yu jeex ngir tontu ci loolu dañuy wax ne lixlaas du ak ñaan lixlaas ci boppam du ak ñaan qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad fofu ñaan nekku fi waaye foofu dafay xabaar day xamle wéetug yàlla gi nekk gi mu nekk kenn ñàkk gi mu ñàkk wayjur ñàkk gi mu ñàkk doom ñàkk gi mu ñàkk soxna wala àndandoo wóote gu mu wóote ak mbindeefam yi nekk gu mu nekk di aji bind ji moom dong kenn melut ne moom loolu la Ixlaas di jàngale waaye dara luy tegtale ak ñaan nekku ci kon ku ñu naan nañ ko jàngal ñi naan fukki laxlaas ak benn ñi naan fukk ak ñaar ñi naan ñeent fukki laxlaas li muy sax tolloo wut am na ñu wax fukk ak benn am ñu wax fukk ak ñaar am ñu wax fukk ak juróom am ñu wax ñeent fukk lim bu ne da nga ko dégg loolu li muy tegtal rek mooy ak làmbatu la goo xam nit ñee ko defal seen bopp waaye bi sallallahu alayhi wa sallam santaanewu ko jàngalewu ko itam kon lixlaas du ak ñaan léegi nag ndax nit sañ na jang l'ikhlas ba nopi dal di ñaanal kenn loolu manes na koo def ndax lol day dugg ci baabi tawasul ta tawasul ci sey jëf ju bax loolu yonal nañ ko nit man na def tawasul ci jëfam ju da nga jang alquran ba yeggale jang gi nga doon jang alquran jëf ju bax la nga di tawasul ci jëf joji nga def ñaan sun borom mbir mala itel mo xam nga ñaanal ko faatu wala nga ñaanal sa bop wala nga ñaanal kenen naka non tamit manes na julli ñaar raka ba noppi tawasul ci ñaar raka yi nga julli ñaan manes na wor tamit tawasul ci koor gi nga wor ñaan loola su tawasul lay tuddu kon jang lixlaas wala jang dara ci alquran def ca tawassul dal di ñaan sa borom loola dara neeku ci amma jang lixlaas ci bopam nak wala jang fukki lixlaas ak ben wala fukk ak juróom diko ñaanal ko faatu loolu mom du sunna tayit lixlaas du ak ñaan والله تعالى اعلم الحمد لله ما شاء الله جرجب ساس دفنا لاج بي مو نيك لاج تي يوت بو امول كينن كو ام ينن لاج آه، مون نانكو يامل في ان شاء الله با بنين جوتاي ñoo ngi nuyu gërëm di leen sant bu baax ci teewlu teewlu bi di jégalu bu baax a baax sasam